Monsieur Baouri ñu ngi lay nuyu di la dalal. ma man euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm. Mm-hmm. nga jiite parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée UDRG nga doonoon tamit ministre de la réconciliation nationale tey la xew ca Guinée ban commentaire justement euh, nga ci am. non euh, Guinée mu ci transition. Mm-hmm. mais transition bi. au début nit yëpp dañu kontaanoon. Mm-hmm. mais euh, ba léegi mu euh, am na léegi juróom ñaari weer. di mm-hmm. la depuis que. Euh, régime Alpha Condé daanu mm -hmm. mais xamaguñu quelle est la durée de la transition mm-hmm. ñaata weer ou ñaata at transition bi lay lay am loolu am ay tës entre euh, les acteurs mm yi CN euh, CNRD dafa mel ni yàkkamtuwul mhm. alors que classe politique bi moom dafa xaw a dafa bëgg a yëf yi leer mhm. pour ñu xam ne fan la ñuy teg tànk yi balaa nuy dugg ci lu lu mënul baax pour réew mi mhm. loolu moo indi fan yi nu bindal CNRD Euh, euh, cinquante huit partis politiques signé benn pétition wax leen euh, lu transition bi lu muy dem léegi kontaanuñu ci. Mhm. disposition bu nu jëloon pour ci charte bi pour def le lu lu lu lu population bugga mhm. loolu gisatuñu ko ci. activité gouvernement bi. Mhm. dañoo bëgg a ñëw fii leer euh, euh, dialogue bi waxtaan entre ñëpp. Mhm. mun a am pour nu mun a defaraat euh, processus transition bi pour mu mun a nekk ci yoon. Mhm. donc fan yi gouvernement bi woote na mu ne defa bëgg nu nu tabax. le cadre de dialogue ou de concertation. Mhm. wax yi ñu ngi euh, discussion bi mu ngi avancé ndànk-ndànk. Mhm. jeexagul mais mu ngi avancé euh, ci beneen yoon gouvernement bi jël na décision mu ne dafay organiser assise nationale euh, à partir mardi 22 mars. Mhm. loolu tamit pour am indi nit yi di waxtaan pour xam lan moo tax. bii réew mënul euh, dem ci kanam. Mhm. bon c'est bien euh, waxtaan pour ñëpp xam euh, mu ku nekk jox xalaatam nan la gisee mbir mi. Mhm. loolu yëpp baax na. Mhm. mais buñ ko utiliser wul. dafay mel ni rek wax après jël wax bi yëpp sànni. loolu tamit dinañ leen ko wax pour nu xa pour ñëpp xam ne. temps yi il faut bu nuy wax il faut nu jëf du wax rek pour wax. Mhm. il faut jëf bi euh, ànd ak euh, wax yi ak waxtaan yi. loolu la moo xew actuellement. ci euh, ci réew mi. fii ci Conakry. Guinée euh, tey euh, mu am ñi nga xam ne jàpp nañ ne déclaration opposition bi nga xam ne fësal nañ ko bu yàggul am na ay semaines cinquante huit partis de l' opposition la ñu wax mais jàpp nañ ne dafa am yenn opposants yi nga xam ne seen position dafa xaw a yëngatu moo taxit rek ñu daal di agiter genre déclaration yooyu la. loolu mun na ci nekk parce boo amee ñun kontaanul. mun nañu uh, uh, wone ne uh, kontaanuñu bon ñooñu ñan lañu. Hmm. am na gouvernement bi dafa wax ñu nekkoon ci bien immobilier de l'État. Hmm. jënd ko walla wax jënd nañ ko. Hmm. ñooñu yëpp dafa bëgg récupérer le patrimoine public. et ci boobu mbir am na ay leader politique. Euh, ñu euh, nekkoon ci ay terrain bu public euh, bu pat patrimoine public bi moo ko mhm. moom mhm. génn leen le vingt huit février dernier mhm. ñooñu président UFDG bi Cellou ak présidence UFR Sidya donc ñoom tamit seen xel dalul Euh, par rapport à ça. Mhm. parce que dafa mel ni dañ leen humilier loolu la ñu wax te boobu benn la euh, beneen yoo beneen bi tamit ñu géroon ñu amoon nguur ci réew mi. Mhm. nekk ci parti yi euh, am ay casserole c'est-à-dire ñu leen accuser d'avoir détourné les biens publics. Mhm. ñooñu tamit euh, benn cour CRIEF euh, la gouvernement bi ak CNRD bi euh, kii ko defar ko et dossier yu bëri bu yàgg ak dossier yu bees boobu cour mu ngi leen di examiner mm-hmm. tamit am na ñenn yi bon seen xel dalul mm-hmm. ci activité boobu cour parce que ku ku ñu épinglé mu mun nañ la tëj mun nga perdre sa euh, sa kii sa droit civique. Mhm. surtout si dossier euh, judiciaire bi euh, kii na condamné nañ la. Mhm. donc loolu yëpp bokk na ci situation bu nit bu réew mi nekk mais fondamentalement affaire personnelle yi benn mhm. affaire état affaire nation bi beneen la. donc dans la situation actuelle dañuy jëf pour que bala euh, pour yu ay euh, problème ay tës tës comme lu ñu amoon dans le passé mhm. donc ci loolu la ñu nekk mais dialogue bi discussion bi bu bu nar a am loolu yëpp euh, espérons-le dina tax ba nit yi seen xel gën a dalaat mhm. pour processus transition bi mu dem ci yoon et puis aussi par rapport au bien public au bien euh, euh patrimoine mhm. yooyu tamit mënuñu ko bàyyi nii rek parce que la corruption ci biir réew dafa jël dimension extraordinaire mhm. buñ koy fajul donc dafay mel ni dañuy nax suñu bokk donc ci ci loolu la ñu nekk Mm-hmm. actuellement ci réew Guinée. Mm-hmm. ngeen jàpp ne euh, cadre de concertation gi ngeen doon ñaax ngeen sàkk ko ba mu ba mu tax tey jii mu am dina sincère ndax yéen a yéen a yëngu moo taxit mbir mi euh, am avancé. non loolu tamit xam nga rek boo boo boo nekkee ak kenn comme on dit booy booy fecc ak kenn ku gumba euh, de temps en temps da ngay. da ngay euh, da ngay dox ci euh, tànkam mu xam ne du moom rek moo nekk ci piste bi. Mm. donc euh, loolu c'est une question de négociation c'est une question politique. Mm-hmm. mais bu nu bàyyi rek suñu loxo nii rek parce que la situation lu mu mel nii du situation bu mun a baax bu nu deful lu ñu nar a def tey. lu duñ ko mun a def suba parce que suba dina ñëw ak yeneen problème ak yeneen difficulté mhm. par exemple tey tey tey prix yëpp mu ngi monté avec prix du carburant prix du gaz prix de ceci loolu yëpp bu nu liggéeyul lu ñu mun a liggéey tey bu difficulté yi gën a bëri suba population bi euh, amul liggéey amul lu muy lekk ah dina indi yeneen coono mhm. te mun na yàq processus politique yëpp. bu mhm. bu nekk alors l'ordre du jour. Mhm. donc raison de plus nañu di dina wax nañu euh, militaires yi ak gouvernement bi. Mhm. na gën a yëngatu na gën a gaaw pas pour dire dañuy gaaw pour organiser ay élections rek. mais dañuy gaaw pour permettre réew mi. mun a gën a dëgër par rapport à situation bu bu bu nekk tey et bu buy suba. Mhm. parce que comme on dit les dangers sont devant nous. Eh, monsieur Bahouri tey nga foog ne lan moo wax a doon dëgg-dëgg euh, waxtaan gi ngeen war a waxtaanee bu weesoo transition bi. bon bu weesoo transition bi dinañ nar a waxtaan pour ñëpp xam ne bii réew ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. amul wax kii euh, euh, bi ñii bii xeet wala bële xeet non ñun bokk. ñun ñëpp ñoo am droit. Hmm. et euh, nguur gi dafa nar a gérer processus bi ci yoon. Hmm. parce que par le passé am na ay crimes de sang. Hmm. am na ay rayanté beaucoup de choses qui font que euh, nit yi euh, confiance bi nekkatul entre population yi. et loolu yëpp musuñu ko faj. den ko bàyyi rek muy accumuler muy accumuler. te loolu yëpp. réew bu bu buggee dem ci kanam il faut de temps bu eggee fen il faut euh, comme comme si nu nu nu def le point de la situation. Mhm. ñëpp xam ne lii baaxul bu keneen bu kenn ba euh, du joxuñu kenn possibilité mu def ko. Mhm. bu bu nekkee tey bu nekkee suba. Mhm. kenn bu nekkee ci nguur gi munul def lu constitution bi. Euh, jox ko euh, disons autorisation. Mm-hmm. donc loolu yëpp il faut mu dugg ci bopp nit yi. parce que euh, gis nañu ay ñenn di ñëw ci nguur gi après bu bu nekkee ci nguur gi di def lu la neex. Mm-hmm. mel ni ñoo moom réew mi. Mm-hmm. ñoo moom nit yi. donc loolu yëpp il faut que population bi xam ne que kenn bu nekkee président ou kenn bu nekkee autorité. gënul ñeneen yi. population bi moo ko jox responsabilité mu jiite pour l'intérêt de la population. Mm-hmm. pas pour ñu ñëw rek mel ni ñoom ñooy euh, moo ñoom moom moom réew mi moom yëpp. Mhm. di jël alal réew mi di koy yóbbu di koy tasaaru di def lu leen neex. Mhm. non il faut loolu yëpp mu deñ pour que euh, bii réew. tamit mun a euh, dem ci yoon mm-hmm. euh, population bi mun a wax ah alhamdulilah mm-hmm. parce que sinon euh, réew mi am na yu bëri mais kiiwul population bi gisul intérêt mm-hmm. lu ñu am bauxite lu ñu am fer lu ñu am ndox lu ñu am ay terre def dara dara dara defuñu ko lu lu population bi mun a wax ne ah nguur gi liggéey na et il faut nu population ba xam ne ku liggéeyul il faut mu deñ mu dindi ko. Hmm. bu bu wax sama mbokk la sama xarit la non. bu nu nekkee ci nguur gi dañu nara liggéey pour population bi et non pas pour intéret personnel. Hmm. et loolu moo gën a bëri eh, ci réew mi depuis indépendance bi ba léegi. Hmm. et boo boobu mentalité il faut mu deñ ci réew mi mu deñ ci dirigeant yi pour ku nekk xam ne. boo nekkee ci euh, euh, devant da ngay euh, tu as des devoirs vis-à-vis de la population. ñu lay jaajëfal bu baax a baax monsieur Baboury jiite UDRG parti donc Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée merci beaucoup. man maa leen di sant gi leen gërëm jërëjëf.